qui se passe qu'est-ce qu'on veut faire Ousmane Sonko watch na ci otoom Ousmane Sonko en ce moment watch na ci otoom gis ngeen chef de protocole boobu nek ci ginnaaw Mom Ousmane Sonko watch na ci otoom en présence de ses avocats mais également en présence de la GIGN Ousmane Sonko ngi noonu watch na ci otoom avocat certes qui di mettre Je pense que là, ils sont en train de... Oui, oui. ñi encerclé woon Oto euh, euh, Sonko say garde moom lañ ñom lañ nek di jël ben par ben